أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci kitaabu tawxid ba tey rek ñu toll ci bunt boobu nga xam ne mooy tere gi ñu tere jaamu yàlla ci bàmmeel tey bunt buñ ciy jël mooy bunt bi nga xam ne mooy fi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di waxee tere nañ jullit yi ñu tabax jàkk ñuy jaamu yàlla fu ñu rob ay nit mu ne wasalaatu indaha min zalik mu ne wa in lam yubayin masjid wa huwa maana qawluha xashiya an yuttaxaza masjidan fa inna alsaxaaba lam yakunu liyabnuu xawla qabrihi masjidan wa kullu mawdicin qusidat alsalaatu fihi faqad tuttaxiza masjidan bal kullu mawdicin yusalla fihi yusamma masjid kama qaala alxabib sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat li al ardu masjidan wa tahura mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa leeral nañ ragal gi mu ragal jullit yi jàpp barab bu ñu roob ay nit def ko jàkk mu ne bépp barab boo xam ne suuf la pàkk la laab na nit ñi mën nañ faa julli waaye bu fekkente ne dañ faa rob ay nit kenn mënatu faa julli mu ne kullu mawdi yusalla fihi yusamma masjid bépp place bu ñuy jullee rek jàkka la fekkee place bi dañ ko jël pour julli tabax nañ ko tabaxuñ ko defar nañ ko ba mu rafet defaruñ ko maadaama fàkk nañ ko di fa jaamoo yàlla tuddee ko jàkka place boobu jàkka la mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla subhaanahu wa taala defaral na ma suuf sépp mu nekk jàkk waaye mu laab loolu ngëneel la loo xam ne yàlla xeetu yonent bi rek la ko defal defalu ko yeneen xeeti ci ñun rek ngay fekk julli jot amoo ndox ñu ne la tiimal julli ñun rek ngay fekk julli jot am nga sijaada amoo sijaada nga defar julli ñun rek ngay fekk sobe takk sa yére nga raxas ko walla nga fóot ko weer ko suba nga daal di koy xëy solaat walla bu fendee walla bu woowee nga sol ko daal ci jaamu yàlla amaa xeetu njëkk yee sobe bu taqee da ngay kuppati fi mu taqati daal di sànni kon yooyu ngëneel la goo xam ne yàlla subhanahu wa taala ko defal xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam suuf si nekk pàkk bu laab bu set fu la julli fekk soo amee jàpp nga julli soo amul jàpp nga tiim ci suuf si julli moo tax mu ne yàlla defal na ma suuf sépp mu nekk jàkk am na riwaaya bu mu ne fu leen julli fekk julli leen mais am na ñeneen ñoo xamante ne mënuñu loolu ñooñu foog ñu déplacé wu dem ba ca barab yi ñuy jaamoo yàlla ñu def ko fa waaye ñun yàlla moo nu defal loolu mu ne kon ci wax ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bu ma doon ut xarit ci hadis bi passé wala kuntu muttaxisan min ummati xalilan la taxastu aba bakrin xalilan mu ne fihi bayaanun anna siddiq afdalu sahaba wax ji yeneen bi alayhi salaatu wasalaam wax ne su ma doon ut xarit kon Aboubacar mooy nekk sama xarit nee na loolu dafa leer na ñu ne Aboubacar ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xeet yu Aboubacar moo fi gën nee na encore day delloo loolu tontu la bu ñuy tontu raafido xeet boobu ak jahamiya ñaari xeet lañ yoo xam ne tey ñu ngi askanoo lislaam waaye ñoo gën a dangereux ci xeet yi nga xam ne ñoo yàq lislaam wa huma charru ahlul bidaa yi ñoo gën a bon ci nitu bidaa yi nee na axrajahum sax baadu salaf min al isna min al isnatayni wa sabina firqa nee na am na ci yenn ci njiit ñi ñooy wooye salafu saalix nit ñu baax ñu jiitu woon nee na dañoo génne ñaari kuréel yi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kuréel yooyu mu waxoon ne danañ toll ci juróom ñaar fukk ak ñaar ñëpp safara lañ jëm ba mu des benn xoola ñi ñoom dañ leen génne ci ñooñu mu ne xam ngeen ne jaamu bàmmeel fekk fu ñu suul nit nga tabax ko jàkk xeet woowu ñu naan raafida ñoo ko fi njëkk a def te mooy chia ñoom awalu man bana alayhi al masjid ñoom ñoo doon wootewu ne ca Égypte ne ñoom ñooy fatimi yi na yi maanaam ñoom ñooy kuréel gi nga xam ne dañoo ñëw di xeexle Fatima ñoom ñoo njëkk a tabax bàmmeel di ko jaamu loolu ci Égypte la ñu mbubboo Hussein te Hussein denc ci ñoom bu mat sëkk bokkul ak ñoom dërëm moo tax jullit yi war a bàyyi ne du lu ñu gis rek ay nit def ko rek war nañ kaa mën a def dara taxul ñun ñi ñuy tabaxi bàmmeel lu dul gis nañu ay nit def ko rek ñu def ko boo waxee ñu ne la diw def na ko waaye diine moom du loolu diine jaamu yàlla la waaye du gis nit def nga def mu ne beneen ci xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne su ma doon wut xarit abubakar laa jël mu nekk sama xarit nee na loolu ishaara ila anna al xilaafa abi bakrin nee na loolu joxoñ la buy wane ne xilaafa gi abubakar yelloo na ko lu tax li anna man kaanat muhibbatuhu li saxsin asaddu kaana awla bihi min gayrihi li tax mooy nit su amoon dara di ko joxe ñi mu sopp ak ñi mu bëgg wala ay xaritam kan lay njëkk a jox ah bu amoon dara di ko maye ñi nga gën a bëgg ci sa xarit yi ki nga gën a bëgg sa xarit moom nga njëkk a jox boo tukki woon tey di ñëw fenn kan ngay njëkk a wax ne ci sa xarit yi maa ngi ñëw ñoom ñoom nga koy waxandoo am na ci ñoom ñoo xam ne koo xam ne moom ngay njëkk a woo kon yonent bi ne su ma doon ut xarit kon diw mooy nekk sama xarit loolu muy tekki ne kooku diw moom am na place ci moom yonent bi jiital ko ci julli loolu muy tekki ne kon kooku dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu salaam jiital na ko ci nit ñi mu jiite leen ah yonent bi sax mer na bañ ne Umar a ngi fi yonent bi mer ne lu tax su ma leen waxee rek du ngeen def Aboubacar moomu turam dëgg-dëgg Aboubacar turam dëgg-dëgg lan la Aboubacar turam dëgg-dëgg kooku kooku kooku jar na montre ah wala téere ah Aboubacar turam Abdullahi la ibnu Usmaan ibnu Amir ibnu Amrin ibnu Kaab ibnu Saad ibnu Tamim ibnu Murra as-Siddiqul Akbar loolu mooy turu Aboubacar kon bu ñu la laajatee Aboubacar nu mu tudd lay wax Abdullahi nee na xalifatu rasulillah mooy xalifa yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa afdalu saxaaba bil ijma nee na mu gën ci saxaaba yi loolu dëppoo la ijma la faatu na ci weer wuñ naan jumaadul ula atam fukki at ak ñett ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy gaañu amoon na juróom fukki at radiyallahu anhu wa ardaahu moom ba tey ci tomb bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci xadiisu abi said radiyallahu anhu marfuan suñ nee xadiis buñ ko liire ba caag ñu ne mar marfu wala ñu ne mawquuf xadis boobu bu nee marfu mooy xadis bi dañ koo yëkkati yonent bi moo ko wax suñ nee mawquuf lan laa wax léegi mooy an abi said suñ ne woon mawquuf kon abi said moo wax xadis bi mais buñ nee marfu mooy xadis bi dañ ko yëkkati yóbbu ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam abi said nee na al ardu kulluha masjidan illa al maqbara wal hammam rawahu ahmad wa ahlu sunan wa saxahu ibnu hibban wal hakim abi said ne yonent bi nee na yàlla defal na ma suuf sépp kulluha suuf sépp dara desul masjidan muy jàkk kon lépp lu ñu naan suuf wala ñu naan pàkk wala doj wala xeer wala mu tegu ci kaw suuf yonent bi nee na yàlla defal na ma ko muy jàkk masjidan illa al maqbara ba mu des bàmmeel wal hammam ak toilette kon li lay wane ne fu ñu suul nit kenn waru fa julli toilette kenn du fa julli boo duggoon ci toilette président it li tax ma jël président mooy dañ koy defar koy toppatoo 24 heures sur 24 du tax nga mën faa julli parce que toilette la boo duggoon ci bàmmeel it ñu taaral ko ba mu taaru du tax nga mën faa jaamu yàlla parce que bàmmeel la yonent bi nee na yàlla ma defal suuf sépp mu nekk jàkk baat bi ngay dégg ñu ne yàlla ma defal suuf si mu nekk jàkk loo ciy dégg lu ngeen ciy dégg mooy lépp luñ ne jàkk la mën nga cee julli waaye mu indi illa ba mu des kon yii mu wax nii lu dul ñoom mën nga fa waaye bu fekkee ñaar ñii rek ñoo fi nekk amoo droit amoo ko droit julli ci kon loolu na leer sunu bopp nee na faman lahu maarifa bi shirk wa asbaabihi wa ziraihi wa fahima an rasulillahi saa sallam maqasidahu jazama jazman laa yaxtamilu an naqiid an hada almubaalaga wallaanu wannahyu bi sigatihi nee na képp koo xam ne xam nga bu baax bokkaale mooy lan ak sabab yi koy indi ak fu mu jóge nga comprendre waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ak jubluwaay bi lan moo ko waral kon di nga dogu ne xam ne yonent bi li muy wax ni dafa ragal julli di dugg ci bokkaale moo tax mu tëj bunt bi nit ku dem ci bàmmeel tey jii ñi koy def lan nga gis ñuy def mooy xam nga ne ñii dañuy jaamu bàmmeel bi am na luñ ci yaakaar loolu moo tax yonent bi saa sallam daal di koy tere mu ne inni anhaakum an zalika man de tere naa leen loolu mu ne laysa li ajali najasa bal hiya li ajali najasati shirk waxul rek sax foofu sobe la waxul sax rek place bi sobe la bu kenn julli comme toilette la wala bàmmeel la du loolu rek lañ ci jublu souvent nga ni fii su kenn déggee ne yonent bi dane ay bàmmeel kenn du ci julli wala toilette kenn du ci julli wala fu ñuy reyee gëléem kenn du fi julli wala fu ñuy tuure mbalit kenn du fa julli suñ laajee kenn lu tax lu muy wax non foofu dafa salte waaye loolu ci la waaye li gën a rëy mooy bokkaale gi la yonent di tëj bokkaale moo tax mu ne bu fa kenn julli looloo gën a rëy mu ne bokkaale goog nga xam ne dafa aju ci mooy yàlla subhanahu wa taala wartikaabi ma naha anhu wartikaabi anhu ma naha ak dem fàggu fa lu yonent lu yàlla tere ngay gis tey seytaane yi bu ñu bëggee mooyloo benn kilifa ci yi muy def kilifa di leen ko defal kilifa gi di leen ko defal pour seytaane yi defal ko li mu bëgg ñu mooyloo ko yàlla jëlloo ko ci diine lu sacré defloo ko ci sobe comme jël alxuraan dugal ko ci toilette comme jël deretu mbaax binde ko ay aaya alxuraan wala jël dem àll ba dugal ko ci jàkk wala dulli ci deru xaj yu bon yooyu seytaane di leen ko def loo am na ci ay nit yoo xam ne tey toll nañ ci alkande ci musiba ci nara dem safara dañuy jël mbir yooyu di ko def ñoo ñu naan sëriñu tariyaax gisaanekat yi buxaaba yi xërëmkat yi jaral na leen ñu lëkkaloo ki jinne ki seytaan jël lu yàlla bëgg lu yàlla fonk ñu def ci sobe loolu moo tax ñu lay tere ñu tere ku julli ci ay bàmmeel ak place bu am sobe mu ne am na ñoo xam dañ koy def wattibaail hawa ngir topp seen bànneex seen bànneex pour bëgg li seen xol bëgg seen bànneex boobu ñu dem def lu mel noonu te xam ngeen ne bànneex ku ko topp rek yow ragalatoo yàlla sa bànneex ngay jaamu kon li nga bëgg lool ngay def mu ne wa qalla nasibuhu aw udima min la ilaha illa allah fa inna hadha wa amsalihi mu ne lenn ci ñuy def lu mel nii bokk na ci li tax ñu koy def mooy ñàkk ragal seen borom ak ñàkk xam jubluwaayu laa ilaha illa allah mu ne lu mel nii moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di koy tere siyaanatun li ximat tawxid ngir aar ngir ñoŋal tawxid balaa ñu ci dugal bokkaale bokkaale dugg ci ba muur ko comme tey ni bokkaale amee loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala mere képp koo xam ne dangaa dem ci ay bàmmeel di jaamu bàmmeel yi wala nga fay fàggu luy merloo yàlla subhanahu wa taala mu ne ñu mel nii nag garrahum seytaan seytaane moo leen war bi ann hada taazim lil qubur al mashayikh wa salihin mu ne leen jaamu leen bàmmeel bi waaye jëmm kilifa gi moom ngeen di màggal moom ngeen di sopp soo ñëwee ci bàmmeel bi nga sëgg ci bàmmeel bi fóon seytaane ne la fóonoo suuf si waaye jëm waa ji ñu suul ci biir nga fóon boo fóonee barabu tànk yi mu ne la du bàmmeel bi waaye waa ji la boo fóonee barabu bopp bi mu ne la du bàmmeel bi waaye bopp waa ji nga fóon kilifa gi ñu suul fii moom nga fóon boo ko raayee mu ne la lararoo bàmmeel bi de waa ji nga raay seen diggante ak yàlla ku ñëw ci bàmmeel raay raay bàmmeel bi lan nga raay hmm? suuf si wala tabax bi karo bi wala moquette bi ñu dëpp ci kawam wala siyaada bi moom nga raay waaye laaloo waa ji waa ji moom mënatoo koo laal abadan mënatoo koo laal ba yowmal qiyaamati doo ko laal boo ko taxawee itam di ko xaar damay sunu si bopp doo ko laal mukk loolu moo tax ñu tere ko beneen bi mooy lan moo la xiir ci nga raay ko lu tax yaakaar ne barke ku la ne am na barke ba desal bala ba boo ci raayee nga am ci la ko wax danaa yaakaar rek beneen bi mooy yow mi koy raay di diw kan moo la wax ne lii nga raay am na lu bàyyeekoo ci lu ñu ki ñu suul fii takk ci say loxo ba boo ko defee ci sa yaram nga yëg dara ku la ko wax ay mbir la yu sew yoo xam ne du hasard yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñu tere raay bàmmeel ndax ragal bokkaale subhanahu wa taala mbokk yi mu ne lii moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëj bunt bi mu ne waaye seytaane ñëw di nax nit ñi wa kullama kuntum laha ashaddu taaziman wa asaddu fihim guluwan mu ne saa yoo gisee ñi nga xam ne ñooy dem ci bàmmeel yooyu bis ak bis semaine ak semaine weer ak weer fan ak fan minute ak minute su waa ji demee tey suba muy delluwaat maanaam buy delluwaat suba day day gën a yokk suy delluwaat déwén day gën a ren bi muy dem moom kenn dem waaye buy dem déwén day yóbbaale jabaram ak doomam yaay sax nga dégg ci ñoom ku ne dund dem dee dem gis nga moo tax bokkaale baaxul seytaane da lay gën a encouragé nga jàpp ne li ngay def baax na fekk li tax seytaane di la encouragé mooy dafa xam na ne fi nga jaar baaxul léegi dina la jaral sax dootoo yem léegi ci yow waaye da nga yóbbaale sa njaboot dootoo yem ci sa njaboot waaye da lay jaral lu wekaar nag koñ bi ñoo leen ñu dem maa leen res lépp fu ñu jëm nga yóbbu nit ñi ci bàmmeel yi mu jaral la nga jàpp ci loxo nit daan ko diw moo tëdd fii diw moo tëdd fii diw moo tëdd fii diw mooy tëdd fii diw mooy tëdd fii duñ yem sax léegi ci ci ci dem di ziyaare ñu baax ñi waaye dañuy dem ba naan xam nga woykatu diw ñu ne waaw ñu nga ni fii fii lañ ko suul nga ziyaare woykat boobu nga ñëw ne xam nga mbër diw ñu ne waaw ñu fii lañ ko suul nga ñëw xam nga simbkat diw ñu ne ñu ne fii lañ ko suul nga ñëw nii nii nii xam nga mannequin diw ñu ne ñu ne fii lañ ko suul gis nga seytaan lim lay def léegi dootoo yem sax ca ñamu la doon wax ne ñu baax lañ sax te ñu tere woon la ko léegi di la yóbbu nga débordé rek débordé xataa ñu bon ñi sax nga leen di ziyaare waale di barkeelu ci ñoom ku bon woykat musicien bu dee ku nekkoon ci lu neexul yàlla ba dee nga koy ziyaare ci gis nga di ngeen pexe seytaan ñaata yoon nga dégg nit ku la ne dem naa ba ci bàmmeelu diw mais ak rafet kay dañ ko tabax ñaata yoon nga dégg loolu loolu la mosoo koo dégg noonu yàlla lu yëpp lu ko waral mooy bunt bi buñ ko xasee ubbi mooy léegi kay jeex na kenn mënut ubbi bunt bi ba pare nit ñi duñ dugg moo tax yonent bi tëjoon bunt bi ne bu ko kenn def waaw bu ko kenn def parce que buñ ko ubbee lépp am su ma tabaxee sama bàmmeelu baay ku sa baay dee ñu tabax bàmmeel bi lu tax est ce que ñeme naa koo tere mu ne eh eh ñu ne la dimbali ñu yaa njëkk a tabax sa bàmmeelu baay bu fekkee daa araam tojal sa bopp toj ko da ngeen di gis Dakar Dakar fii ñu sullee fi ay néew yóbbu ci ay dëkk tabax leen ci digg kër ya def ci jàkka man man teg naa loolu bët gis naa néew bu ñu sullee Dakar bëccëg dugal ko ci oto yóbbu ko ci benn dëkk fii soriwul dara ñu dugal ko ci digg kër ga dafal ko jàkk parce que néew bi bi mu nekkee Dakar daawul liggéey xaalis bàmmeel bi mu nekkee Dakar kenn du ko ziar bu nekkee dëkk ba nag léegi dañu mën a organiser ziar gars yi ñëw di raay gis ngeen li ëpp ci li tax ñuy tabax nit ñuy kuddee léegi ñu suul la sa biir kër mooy ziar bi ndax ziar yi du loxoy kese yenn saa yi sax nga dégg yenn nit ñi ñu ne billaahi billaahi waa ji bi muy dund dafa yore woon dépasse mu dee dépasse du continuer dégg naa ko ba tàyyi ah ah néew dundal ñuy dund.
waaw néew dundal ñuy dund ndeysaan yooyu yëpp pexe seytaane la rek ku dee dañ laa war a suul fañ suul jullit yi loolu moo jaadu mbokk yi yonent bi alayhi salaatu salaam tëj na bunt boobu waaye seytaane du ñu bàyyi fa mu ñëw ubbi bunt bi nax nu comme ni mu naxee woon ñi ñu jiitu ci jaamoo leen yaaxuus ak yaaqu ak nashr jàngoon ngeen ko wa qaalu laa tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwaan wala yaxuusa wa yauq nasr seytaane moo waxoon loolu ñooñu tey lan lañu jàng ci xadisu ibnu abbas ñooñu lan moo taxoon ña leen toppoon ne nañ leen defal ay estati lu taxoon mooy kaay leen ñii kat dañoo baaxoon nañ leen defal ay estati ñu samp leen ñoom fañ daan toog di jàngale amaana ñun bu ñu leen xoolee suñu xel dem ci ñoom duñu duñu moy yàlla waaye mbir moomu fan la mujj bakkaale ale wa qaalu laa tazarunna alihatakum aliha gis nga yàlla baat bi la indi mbir ma ëpp na ci ñoom bañ na bu leen bàyyi yàlla yi de bu leen leen bàyyi fii nag gars yi duñu wax yàlla parce que baat boobu ñemewuñ ko waaye lu ñuy wax bu leen bàyyi bu leen bàyyi mag ñi bu leen bàyyi mag ñi léeg la nga dégg benn waaye buy buy buy sànni birig du ma wax xeer birig laay wax dan waaye bu yor birigam naan dafa am ñu fi ñëw bëgg fee jële li fi mag ñi indi woon du ngeen dégg loolu bala yéen déggu leen loolu bu dafa am ñu fi ñëw bëgg fee jële lu fi mag ñi indi woon waa ma ne mag ñi ndax mag ñi ñoo mag mag moomu tudd Muhammad damay laajte mag ñi ñoom mag moomu tudd Muhammad ku mag wala mag ñi ñoom mag Muhammad yaakaar naa mag ñi ki ci jiitu mooy mag moomu tudd Muhammad ndax mag ñi ñoo mag mag moomu tudd Aboubacar Umar Ousmane Ali gis ngeen kon njuumte la beneen bi mooy est-ce que mag ñi dañ fay indi bokkaale misaal laay joxe benn mag bu ñuy wax tey ci magi réew mii ndax moom daana dem di ziare ji bàmmeel ban bàmmeel la doon ziare mag boobu nañ ma ko wax comme tey nit ñi nit ñi ni ñuy duggee ay oto di dem ci ay bàmmeel ndax ñoom duggoon nañu ay oto dem ci bàmmeel wax leen ma kenn ci ñoom ku mus a dugg oto duggal ci njabootam dem ci ay bàmmeel kan la ah waaw bal sax ñoom yoruñu woon i bàmmeel ku dee ñu yóbbu ci armeel ya seen njaboot ak tout ku dee ñu yóbbu voilà kon gis ngeen iblis lu muy def seen ginnaaw la ñu xewal lépp daawuñu takk ay photo comme tey nu mu amee bu fekkee loolu am na kenn ci mag ñooñu ban photo kan moo ci doon takk benn photo wax leen ma ko acca am na benn téere boo xam ne wax na lii naa ko benn mag sëñ Tuubaa mu ba mu jëlee séntuweer léegi mu ne lee na la ñu nekk xamal mu ne maa ngi duggaat balaa maa ngi gis bay génn bu ma fekk bu mu ko fekkaat ñu tabax ko noonu dañ ko toog.
tabax bàmmeel kañ la fi xew mooy bàmmeel bu ñu tabax rek bàmmeel boobu foog ñu màggal ko bàmmeel bu ñu tabax foog nit ñi màggal bàmmeel def ci cuuraay def ci parfum def ci karo marbre da ngay gis bàmmeel boo xamante ne lañ ko lañ ko defaree dundaloon na juróomi miskin te wallaahi bu ñu joxoon loolu miskin yi waa ji am tiyaaba waaye seytaane moo lan la déedéet moo ñuy nax mbokk jullit yi danañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko danañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko mu ne bokk na ci borom xam-xam yi nga xam ne illaal nañ yonent bi tiit gi mu tiit ci bokkaale mooy imam shafii abu bakr al athram abu muhammad al maqdasi seykhul islam ibnu taymiya wa gayrihim wa huwa alxaqu alladi la rayba fihi nee na boroom xam-xam yi ñu tudd ñi ñëpp bokk nañ ci ñi firi xadis bi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ragal gi mu ragal ci xeet yi bokkaale moo tax mu tëj bunt bi mu ne fa inna sahaaba lam yakunu li yabnu xawla qabrihi masjidan mu ne même saxaaba yi tabaxuñu woon bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàkk ma waxee yenn saa yi mos naa dégg benn waaye ndeysaan muy wax te xamul mu ne da ngeen naan yéen nit kenn du ko suul ci jàkk te yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ko suul ci kaaba gi waaw ci xeer wu ñuul woowu moom la ñu moom la ñu dëpp ci kaw yonent bi kaaba gi fan la nekk yonent bi suuluñu ko sax mag gis nga ñàkk xam waa ji bi ci werante ba dënn bi tàng te xamul na yonent bi suuluñu ko mag kaaba gi loolu mu wër du néew xeer moo nekk ci biir ci ruknul yamaani xeer ba tudd xajarul aswad xeer boo xamante ne aadama moo ko wàcce woon jële ko aljanna moo fa nekk yonent bi ñu ngi ko suul Madina waaye fan lañ ko suuloon ci Médine fan néegi yaay Aïcha suuluñu ko ci jàkk ci lan moo tax ñu suul yonent bi néegu Aïcha yonent kenn du ko déplacé fu mu faatoo lañ koy suul te xoolee maandu te yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu nekkee ci feebar mënatul déplacé wu di ay ayloo ci soxna yi daf leen woo ñoom ñoom ñu toog mu ne xam ngeen ne sama feebar bi métti na ñu ne waaw xam ngeen ne mag laa ñu ne waaw mu ne dama leen doon ñaan yéen kenn ci yéen rek ku ngeen dëppoo rek ma nekk néegam ba ma tane wala ba yàlla yàlla nu mu xam def loolu mooy ni mu dee ci néegu Aïcha mu faatoo ci néegu Aïcha dama leen koy ñaan jigéen ñi ba ñu xoolantee ñu xam ne Aïcha moo gën a nekk ndaw ndaw moo gën a mën a toppatoo malaat ndax màgget mën da yëkkati ku mag mën day ko ci ku mag amatul njoole ñu ne ko kon Aïcha moo fi gën a nekk ndaw nañ nañ la bàyyi néegu Aïcha loolu mooy ni mu faatu néegu Aïcha waaye gis nga réer bon ñàkk xam ak ak nara alko day dugal nit ñi ñu indi far farloo ba dootuñu dégg dëgg te diine du question far kenn amul droit far fenn furul far ci ginnaaw yonent bi ak l'islam waaye da ngay gis nit far ci tariixa ba contre islam loolu même bu dee dëgg sax ñun suñu yoon nekku ci waaye bu yàggee naan sharia lan mooy sharia ñun suñu yoon ci sharia nga dégg wax loolu boo nee sama yoon ci sharia yow génn nga ci l'islam nekkatoo jullit te lu ko indi mooy farfarloo ak ñàkk bañ a nangu dëgg ku bokkaale yàlla li mu wax mooy dëgg innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna billaahi ku bokkaale yàlla yóbbu la safara kon nag wala fi nee na ku leen a sangul mu ne beneen xadis bu yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ñu jële ko ci imam ahmad mu ne ibnu mas'ud nee na moom tamit marfu xadis bi inna min siraari nnaas man tudrikuhum ssaa wa hum ahyaa والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه ينتبه يعني عليه الصلاة والسلام نينا إن من أسرار الناس bokk na ci jamono bi gën a yées ci jamono yi nit ñi man tudriku musa mooy ñi fi yowmal xiyaam nar a fekk wahum ahya fekk ñuy dund génération bi gën a yées gën a bon ci génération yi doomu aadama yi mooy ñi fi yowmal xiyaam nar a fekk xam ngeen riwaaye ñoo ne yonent bi ne bu yowmal xiyaam di ñëw du fekk ci suuf lu toll ne pepp suuf ci ngëm ci xol yi ñépp ay yéeféer la ñu doon yonent bi ne jamono jooju moo gën a yées ci jamono yi mu ne wallazina yattaxizuna alqubur masajid ak ñi nga xam ne tamit jamono bi gën a yées ci génération yi mooy jama génération boo xamante ne jàkk yépp ay bàmmeel la ñuy doon loolu commencé na commencé na di Dakar sax am na mosquée yooyu dugg ñu ngi suul imam bi ci biir wala kilifa diine bi ci biir jàkk bi waxuma la ak dëkk kaw yi gis nga dafa am néew
ma dem ci jàkk yi amul benn jàkk boo xam ne amul néew gis nga daanaka dañuy dem jamono boo xamante ne julli nit ñi dootuñu ko amati jàkk joone saraax fekk fa ñu suul fa kilifa gaag taaw beeg kaca topp ak kaca imagineel kër gi paa bi am na juróom-ñeenti doom wala am na fukki doom ak juróom parce que ñetti soxna la yoroon wala ñeent soxna bu nekk am na ak yow juróomi doom ñaata lañ ñu fas yéene ñooñu ñëpp ku ci nekk xalifa boo dee ñu dugal la ci jàkka ji fu jàkka jooju jëm lu muy mujj nekk ay armeel yonent bi nee na nag jam gis ngeen wallaay yonent bi moo wax dëgg imagine ne lii ma wax ndax amul commencé wul am commencé na am da ngay ñëw gis ñu ne côté bii yëpp ñoom lañ fi dugal fii fii doom yee fi nekk fii sët yee fi nekk fu nit ñuy julli fan fu jëm kon yonent bi ne génération inna min siraari naas la wax nit ñi ñi ci gën a yées inna min siraari naas li gën a yées ci nit ñi man tudrikuhumu saa ñoo xam ne bés pénc dina leen fi fekk wahum ahya fekk ñuy dund mooy jamono boo xam ne dañu jël bàmmeel yi def ko ay jàkk wallazina yattaxizuna alqubura masajid mu ne xadis bi man tudrikuhumu saa wahum ahya mu ne muqaddamatuha li ci jiitu ci taxawaayu bis penc mooy xuruju dajjal dajjal génn wa tuluu sams min maghribiha jant bi fenke sow wa baada zalika yunfaxu fi suur su keroogee dañuy wal buftu bi nafxatul fazi ufu tiitaange ñépp tiit man yàlla yow ma ne yow ma yunfaxu fi suur bis bu ñuy wal buftu bi allahu akbar luy am mu ne fa saiqa man fi samawati wal ard ñéppay faatu ñi nekk ci asamaan ak suuf man fi samawati wal ard ñéppay faatu ku dégg xaacu bi da ngay faatu illa ma shaa rabbuk moom des ñi yeex yàlla jibril xamalatul arsh malakal mawt ñoo ñooy mujjee da nga yaakaar ne ñooñu dundee aha kay malakal mawti day jox la yàllaa ko gën a xam waaye liggéeyam lay def yàllaa ko sant day jox la yàlla compte rendu ñépp jeex nañ maa fi des ak jibril ak xamalatul arsh yàlla ne ko demal nga rey jibril allahu akbar laa ilaha illallah ndeysaan yàlla mu ne ko na jibril faatu laa ilaha illallah arsh daal di yuuxu ne yàlla ndax jibril day faatu yàlla mu ne ars noppi lii nga gis tey moo tax ma bind la mu faat jibril xamalatul arsh mu ñëw yàlla mu ne ko lu des mu ne ko man ak yow yàlla mu ne ko sukkuraatal ndeysaan mu sukkuraat sukkuraat bi metti mu yuuxu mu ne yàlla bu ma xamoon ne dee nii la méttee kon bi nga ma ko santee dinaa la ñaan ngànt nga jox ko keneen yàlla mu ne ko deewal mu faatu mu des fi borom asamaan ak suuf sunu borom laa ilaha illallah moo tax ñu tudde ko càppaacoli kenn mu laaj àdduna nag yaa dunya ayna qusuuruki àdduna ana say sato ayna abnaauka ana say doom ayna aljabaabira ana bandi borom doole yi ana ñu ayna almuluk ana ruwaay yi buur yi ana ñu allahu akbar mu ne laa mujiba ahadun illa allah kenn du tontu amul kuy tontu kenn nekk moom yàlla mooy toog ba caag mu ne limanil mulkul yawma kuy buur tey limanil mulk kan mooy buur mu ne lillahi wahidul qahar gis nga wallahi alquran waxu yàlla la gis nga ba aaya boobu yàlla mu ne bi mu ne kan mooy buur amul ku tont mu ne lillahi wahid yàlla kenn ba pare mu ne alqahaaru xam ngeen qahaar mooy la mooy notaakoon bi tey not na ñépp kenn tontuwul not na ñëpp ba kenn yënguwul not na ñëpp loolu ñu naan maîtriser da ngay dégg ñu ne force l'ordre bi dañoo ñëw maîtriser waa ji ah yàlla nee na maîtriser naa ñëpp ñëpp a ngi ne salaw amul kuy yëngu amul kuy wax loolu mooy alqahar lu tax baat boobu dugg foofu ci aaya bi lu tax gis nga dégg nga wax est-ce que dégg ngeen ko xoolal lim des. ah waxul aaya bi eggul feneen de dafa ne lillahi waahidul qahaar li mu dogal li mu def loolu la tontu dafa noot ñépp la mu ne lillahi waahidul qahaar tey mu des moom kenn notaakoon bi ñépp la not amul kuy yëngatu tey amul kuy kuy sëqat amul ñépp a ne teg te loolu ay atam la ci moom allahu subhanahu wa taala kenn xamu ko nekkul ne dafa rey nit ñi tey suba mu laaj ay atam la xayibu la kenn xamu ko moo toog lu ko neex ne li manil mulkul yawma tey kan mooy buur amul ku tont mu ne lillaahi nguur gi tey yàlla rek moo ko moom lillaah bu yemoon foofu doy na mu ne alwaahid ki di kenn alqahaaru notaakoon bi ndeysaan kon war nañ xam yàlla du suñu morom xam ngeen lu tax loolu mu nekk mu am yàlla daa am doole yàlla borom doole la de adduna bi ñaata nit ñoo fi nekk bëri nañ instant bi ñu toll ñaata nit la
7 milliards yi.
7 milliards yi mat na depuis aadama ba léegi ñaata milliards la ñooñu ñëpp yàlla ne leen muut ñu noppi kooku amul doole ah moo tax sunu borom dooleem kenn xamul nu mu toll waaw moo tax mu ne yowmal qiyaam asamaan ak suuf dama koy lem téye ko sama loxo ndeyjoor bi wa samawaatu mutwiyaatun bi yamini imagine la asamaan ak suuf nu mu toll kan moo mën a ngëpp kilo mburu kilo mburu bopp ñaari bopp yi nga tànc ko ba ci digg bi ngëpp ko nii ku ko mën mbëri sax mënuñu ko li ñu am doole mënuñu ko foog am lu génn ci seen loxo yàlla nee na asamaan ak suuf ñu lem ko ma ngëpp ko ngëpp mooy loo xamante ne boo ko defee nii li nga yor ci biir kenn du ko xam montur jàkk ji ku mën a ngëpp ba du feeñ kon yàlla am na doole de yàlla am na doole noonu lañu yàlla yërëm yàlla bu ñu yàlla bàyyi ak suñu bopp mu ne jamono ju gën a yées wala waxtu yu gën a bon ci kaw suuf mooy jamono ju ñuy jaamu yàlla ci ay bàmmeel tabax xabru yi mu ne wa min siraari naas yi gën a bon ci nit ñi allazina yuttaxazuna alqubur masajid mu ne ñu jàpp jàkka yi def ko ay bàmmeel mu ne haza min amali yahud wa nasaara loolu jëfi yahud la ak nasaraan te ñooñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëbb na leen ala zalika tahziran lil umma yonent bi rëbb na leen ngir mooy te ndikuloo xeet wi an yafalu xeet wi def ma nabiyihim wa saalihihim fi alal yahud wa nasara xeet wi def ci seen yonent wala seen ñu baax ñu ñu am jëfi yahud ak nasaraan bu yonent bi rëbbee ñooñu kon ñun daf ñoo bëgg a mooy tëndiku lool waaye ñun daanaka raw nañ leen ñun fi mu nekk nii waxuma la ay kilifa yu mag mag mag la ñuy tabax seen bàmmeel mais léegi Sénégal moom ku dee rek dañuy tabax sa bàmmeel ku dee rek ku dee rek buñ ko tabaxul ci biir kër gi tabaxuñ ko ci biir jàkk ji ñu fekk la ca armeel ya fa nga tëdd tabax ko nit ñi dañoo bañ bañ bañ ni ñuy dunde ci àdduna dañ ko yóbbu ba ci bàmmeel yi da ngay dugg ci armeel yi xam ñi am xaalis ak ñi amul xaalis patron yi ak ñi dul patron ba ci armeel yi da nga koy xam wala ndeysaan yàlla doon wax ne alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir bëri leen te yitteel na leen ba ngeen dee egg ci armeel ya te nekk ni ci ci dëkk bi kër goo romb mun ngaa xam ne kër gi borom am na xaalis wala amul xaalis wala ci biir dëkk bi fii ah armeel yi tamit boo demee da nga ràññee borom armeel bi borom alal la woon borom armeel bi amul dara kii wala kaana la woon soo rombee kër yi xam borom kër gi wala kaana la borom kër gi am na alal lu ko waral mooy jaayante alal il faut ñu tabaxal ko bàmmeel bi il faut bàmmeel bi ñu def ci karo il faut bàmmeel bi ñu def ci laso il faut bàmmeel bi ñu def ci marbre il faut ñu def ci fleur il faut ñu def ci waaw boo ko tabaxul sax ñu ne yéen leen na ñu bon ngeen seen bàyyi de fayu leen ko seen nangam de fayu leen ko allahu akbar dem leen Madinatu Munawwara da ngeen gis bàmma bàmmeelu imam Malik kenn tabaxu bàmmeelu Usmaan ibnu Affan kenn tabaxu ko ngeen dem Uhud ngeen fekk fa bàmmeelu Sayyidu Suhada sang yi nga xam ne dañoo dee ci yoonu yàlla seen njiit bàmmeel bi kenn tabaxu ko keroog ba ma fa yóbbee mairie ziar ñama àndaloon délégation bi jógoon Sénégal ñu dem Uhud ñu yegg si dem ziyaare ji armée li Uhud man leen xool leen bàmmeel bi mu ngi nii kenn tabaxu ko te kooku tey bàmmeelam yelloon na ñu tabaxee bàmmeel bi ay birigu or Hamza Hamza bàmmeelam yelloon na ñu tabaxee ko birigi or bu ñu paree ñu ruyal xaalis pintiri ko ko allahu akbar bàmmeelu Usmaan ibn Affan yellu loon ñu tabaxee ko or waa ji nga xam ne yonente bi ne kii yàlla xoolatul lu mu def te terewul seen bàmmeel yi kenn tabaxu ko ñun boo ñëwee bi fekk ñu tabax bàmmeelu artistes yi artiste simbkat yeeg rappeurs yeeg gaynde yi di tabax seen bàmmeel yi kon incha allah mbokk yi fi la ñuy yem incha allah ba dars bi di ñëwaat ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullah